Birame Diouf la sant yaayam sama badjan askan la. Alias, alliance Camara moy papa ma ngi non tono Alias. Ah, alias sama frère la Alias sama cousin la. xam kan nga mi ngi bokk ben kër bu ñu yaroo. maa ngi nii ci bir kër gi. maa ngi nii fa laa nekk xam nga maa ngi kan wax kon li may wax kon yaa ngi koy parce que ku xamul dee. ray la ba sa biir kër ray la. ku ko dund nga eh. kon tay ji limay wax ni leer na parce que. man tay Alias mo mo gañu Benga ma de gede, ah. may de alias ah. fay wote di joy pour gis tantam billahi Wallahi, pour gis tantaam wallaahi dafa metti ñepp ay mbokk lañu senegal ñepp ay mbokk lañu ay mbokk lañu ko waral ñepp ay mbokk lañu kenn warta ray kenn wallahi ko ray rek ray nga sa mbokk ray nga sa mbokk ndax bu bokkul ak yow bokk naa ku la wallahi bu dekkul ak yow dekk na kula jégué wallahi Hmm. Lalla Camara sama doom jooju yàlla na xippee àjjana firdawsi ak kan la bàjjanam ak sama ah. pap ñoo bokk suñ papa yi ñoo bokk ndey ak baay ndeysaan ndeysaan sama doom ngay wax sama doom ngay wax papaam ñoo bokk benn kër bu ñu yaroo maa moom barke yonent ma nekk xale ñu nekk samay grand yar ma ah noonu ñu ko def tey noonu lañ def Aziz ku ko dund mënoo koo xam dafa metti yal na yàlla leeral yëpp ma yàlla baax na maa ngi maa ngi tëj sama micro. waaw ah, ñëw leen Suzanne. waaw Suzanne ñu jox kenn mu jël kàddu. waaw waaw wala wala wala. Suzanne ñëwul. waaw ñëwal Suzanne. waaw mais yéen yéen ay champion ngeen de. ndeysaan Marie Marie mënu mën a jël de bu dee sa compte privé la. dafa demande ambassadeur la mën a jël de ñëwal ñëwal Suzanne. boobu ba tey maa ngi suivre ci suba ba tey laa wax waxuma boobu sax commencé gu leen di dajaloo mais vous êtes des champions. yéen mun nañ leen dénk réew. ndeysaan et puis xamu leen seen lii ngeen seen panel bii team ambassadeur bi xamu leen fu mu leen jëme mën a jëme de. ndeysaan. billahi xamu leen fu mu fan la leen di jëme ji ndax lii ñëpp ñëpp ci ay yu ndaw yii la ñu commencé mais lii ngeen commencé dafa rëy de. Mm-hmm. bu leen ko xeeb de mais xool leen ni ngeen dundee la waat xol yi xoolal depuis quatre mois comme combien de mois Aziz Aziz wuñ ko à cause de vous. ay ndeysaan. fàttewuñ ko ñu ku ku am na ñoo xam ne sax ni ñuy ñaanale Aziz duñ ko ñaanale seen ay waajur yu dëddu. wallaay dëgg tout le temps tous les jours yéen a ngi dundal a ngi dundalaat ak ak euh, mais yéen yàlla moo leen di fay de nit amul seen pay. yalla am sen pay so dina len ko fay ngeen gi fay ci darajey nabi Mustafa sallallahu Alaihi Wasallam. sira jaru toy de ndax li ngeen di liggéey xamu leen ko de ambassadeur ak timam bi ha mhm. man dama waru tay de ndeysaan ku ñewul perte nga ndeysaan ku ñewul perte nga man bu ma mhm. mënoon ñëw ndakaaru tey dinaa ba ba toog kanam non vraiment ko ñëpp assalamu alaykum ñëpp kontaan maaleykum salaam parce que affaire vraiment tellement ni mu réussir yàlla dimbale yàlla leen yàlla dimbale yàlla leen yàlla jàppale mm-hmm. li ngeen fi def ak ni ngeen ni ngeen dundale waat xolu yaayu a ji mm-hmm. da ngeen def ne yàlla du fay yàlla day fay de vraiment eh, vraiment day fay de day fay sa dina leen ko fay ngeen ngi fay yàggatul sax incha allah rabbi ca kanam tuuti rek mm-hmm. yéen ngeen mun yéen ngeen mun diriger réew li ngeen def mooy lan mën ngeen diriger réew sax fi gis nga fi mu leen jëme xamagu leen ko billaay xamagu leen ko nañu hmm. dem ba sa kanam di ngeen ne maman Suzanne Diouf waxoon nañu lii tiyante leen rek tiyante hmm. leen bu yéen seen yoon ku ku ku ku nekkul ci géew bi tiyante leen hmm. rek jàppante leen loxo rek panelu ambassadeur bi moom panel bii jàppante leen loxo rek lutte contre l'injustice ak bu mën a am ci Sénégal contre l'injustice laa la wax doy ngeen sëkk ku ñëw moo xam ku ñëwul xam moo xam. ça va se transformer en ONG. jàppante la mais mais bu xamoo ANC ak lu ne lu ne xëcc ci mais des champions. ñii dañuy waaye yéen yéen allah macha allah eh, moom madame Suzanne affaire réussir man. ma ko woon nii maa ngi toog di mais dama kontaan. surtout j'ai bien apprécié. j'ai bien l' intervention de la tante de Aziz Dabala. parce que loo xam ne aussi il faut nga duru baaraam. xaaral ma bàyyi la ma xaaral ma bàyyi la. du baaraam de. maa ngay bàyyi mais layam layam gi dafa kii. parce que yow on pose des questions waxoon naa leen ko fii depuis le début. il faut hmm. revenir sur la découverte de la scène de crime. wax naa leen ma tay loolu yëpp dina la loolu mooy problème la découverte de la scène de crime loolu tant que expliqué wu ñu ko tant que moo fi leer. affaire hmm. bras long rek la du leneen. affaire bras hmm. la rek du leneen Sénégal moom mel noonu. moo mel noonu waaw mais mais yàlla yàlla gën a long ne. on verra mm. incha allahu rabbi yal leen taxaw gën a gën leen na mm. taxaw nag mm. incha allahu rabbi yàlla karim la jërëjëf jërëjëf amin amin jërëjëf amin euh, l'observateur waaw asalaamaaleykum soxna si waaw man de maa ngi doon siif sax ndax vraiment vraiment j'ai été ému quoi parce que réussir trop trop sax belle mm-hmm. organisation ba noppi j'ai bien apprécié beneen daam bi nga xam ne rey nañu doom mu ñëw te ñoom dañu wax ne ne dañuy continuer di xeex lii pas pour ñiy dem kese kese mais dañuy continuer parce que lii boo xoolee dans les dans les pays occidentaux am na si ñoo xam ne dem nañu ba diriger ay ONG wala organisation parce que dañu mhm. feebaroon am benn cancer mujj gi mhm. di di di cancer bi sonal leen ba mujj gi ba ñu jóg ne léegi dañuy mmh. continuer di xeex cancer wala nit ñu rayal la wala nga nga mmh. subir injustice nga continuer créer sa structure ba commencé di ci liggéey donc même le panel mmh. de de l'ambassadeur là bu ko kenn bàyyi lépp lu xewate Sénégal injustice am fa dañ ci war a taxaw wax ci xanaa mu bañ a laal politique rek bu laalee politique moom dafay jaxase mais lépp lu laalul politique di injustice sociale rek da ci war a wax mën nga dem ba am say papier taxawal ko comme ONG di xeex injustice loolu mooy dëgg. parce que lii ñu ko waaye bàyyi mu sedd te tey. boo xoolee xolu yaay Aziz féex na. ñoom ñëpp mm-hmm. kontaan nañu wax nañu li ñu war a wax. waaw maire bi aussi li mu wax aussi loolu mën na yëngalaat dossier bi parce que am na foo xam ne bu fa tolloo da nga yëngal gësam. Mm-hmm. waaw parce que man si j'étais la dame ma nii damay waaxu ba ca si je n'ai rien damay waaxu ba ca kër ñoom yaay Aziz digg bëccëg ñu xam ni. kii mm-hmm. deful dara. nga wax ak mm-hmm. ñoom nga leen takkawuma laalewuma xaw mais la découverte de la sein de crime mais wax na ko ah, lan moo la mm-hmm. yëkkatiloo ba nga wax li tax nga doon yuux c'est que bu doon tubaab yi dañ koy analyser lu tax nga yuux naan diw seen affaire luy problème bi mais loolu c'est la peur c'est le remords <laughs> c'est la peur et c'est le eh, remords moom moo lay wax loolu ak Aziz la ak Aziz fu mu la yóbbu il faut dire la vérité l'autre ki mujj wax aussi euh, kii keneen ki ki nekk ci ci Feeling Dakar nu mu tuddati ki toogoon wetu Samba Nguer. Jimboori. Jimboori. Jimboori li mujj wax ne de talent lañ ko iñaane jalousie la. c'est le te boo xoolee dernier clip bi mu defoon waali nga xool ni ñu nga xam ni ñii dañ doon lancé te daf doon lancé boy bi fa nekkoon pour mm-hmm. lancé ko. soxor. mais la méchanceté les gens sont devenus extrêmement méchants au Sénégal. méchant extrêmement méchant. méchant mel ni dañ ñoo formaté.

waaw ne leen génn leen ngeen bokk ci collectif bi on va se battre pour la justice <clears throat> parce que rey nit noonu rek ci Sénégal dafa yomb c'est trop facile mm-hmm. dafay installer insécurité baaxul mm-hmm. ah, ak la manière dont on a assassiné ah, dafa metti da koy xalaat ba man li ma gën a metti ma koy xool ma naan man surtout les derniers instants de Wally maa naan Wally bu fekkee gisul Aziz gisul koor gisul dara naan maa mhm. ngi dee ci kër Aziz te tumuranke ñëw ci ñëw ñëw ci kër jàmbur en catimini parce que jaaxle nga gisuloo ndey mhm. gisuloo baay ah est-ce que dinañ wax naan kan moo ma war a def lii ani Aziz dëgg la ah dans sa conscience mën na ne est-ce que Aziz du moom booba ndeke suba gi toog di la xaar Aziz rey ma metti man li ma hmm. metti keroog ba jooy la ma mooy waali avant muy dee est-ce que est-ce que jàppul ne sax est-ce que jàppul ne sax Aziz a ko bëgg reylu wala nangam ak nangam loolu yëpp da koy woo nit rey ko fu xale bu jeune xale bu tuuti. xale bu ndaw lan la këpp ci seen. non mais weesu këpp ci seen kaw kan mooy rey nit ba noppi mais mais mais kan mooy rey nit ba noppi ba noppi di dalati. parce que conscience remords remords dafa am boo tëddee ba guddi sa conscience mooy jóg ne la hee diw ko rey ñun ñoo xamul. mais hmm? ñoom ñu nekkoon dans la scène de crime ñoom xam nañu. ñoom ak yàlla rek ñoom ñoo xam. xam nañ de ah. xanaa xanaa daal la question yi ma doon posé yëpp depuis le début tey maire bi posé na ko moo tax ma kontaan. Mhm. Ah, lu tax nga dajji bunt bi pourquoi nga dajji buntu jàmbur. lan moo la tiital lan moo la tëploo ba nga dajji ko. Ah, kan moo la mhm. la salle de am na cadavre bu fa nekk ku la ko wax. waaw hmm. ah, léegi nag loolu question yooyu ndegam maire bi moo ko mën a xalaat moo mën ko xalaat warta échapper justice Sénégal. vraiment. Vraiment. J'ai bien apprécié la, la, la, la, la bravoure de, de, la dame. Mm -hmm. de la dame il faut aider aussi il faut que mu génn ci layam layam yi baax baax lu bi. parce que lépp wax naa leen wax naa leen ne leen wax naa leen ne leen yéen euh, seen façon waxin bi ñoom ñi nga xam ne dañ koy lijjantil pour génn dañ koy exploité waale. Mm-hmm. waaw da nga koy exploité waale da nga ko naan jiiñu ñu la taqañul la. mais qu'est-ce que tu as su lan nga xam ba ba ñëw ne da ngay dajji bunt bi. ba ñëw ne da ngay dajji ba nga may woo au lieu laajoo ma ndax Aziz nekk ne ma nga seen kër wala nekkul. seen kër di say dajji kat bàyyi feebar. Ah, parce que xam nga ni nekku fa. woo say dajji kat ñu ne déetawaay nga woo sa policier. mais bu doon man la bu doon man la dama naan. Ah? est ce que demul clinique. ma woote seen bu ma wootee seen kër première question bi ma war a njëkk laajte mooy est ce que diw nekkul foofu. Ah? Mhm. mais yàlla moo la juumloo nga ne diw maa ngi koy woo jotu ko kon damay dem këram parce que xam nga ni nga ci këram. damay dem këram woo ay woo ay sëram woo frère am te mosoo leen a woo mosoo faa dem ba woo leen. Hmm? loo xam ba pare léegi ñu ñuy gëmloo naan Sonatel dafa juum ci midi wala. mais nag man loolu Sonatel Sonatel demee léegi papier boobu dañ koy xool delluwaat Sonatel Sonatel lépp nga fa. yow policier bi yow boo demee loolu du yàq dara Sonatel la ñuy demaat réquisitionné waat affaire bi. dañoo yabaate sax dañoo yabaate sax. Hmm. ah mais du ñu woo waali kii nee na ubbee ñu woo waali mais du ñu woo waali luñ koy doyee parce que xam nañ ni loolu doggo man na moo tax moo tax euh, l'assassinat de waali ce sera très difficile à justifier. ma ne l'observateur loolu moo leen dugal bés bu ñu demee bu ñu affaire Aziz juge bi bu leen laajee affaire waali dañuy daanu parce que mënuñu ko justifier. ma ne Nabou Leye waali moom mooy wane moom mooy wane. Nabou Leye ba mu woowee Aziz jotu ko la waroon na woo waali lu tax woowul waali. waaw parce que xam xam na ne waali dundatul ndax bokk na ci ñu ñu rey yow Nabou Leye loo seq ak loo yi ba ñu war laa woo téléphone oui lu mu ak ñoom bañ koy woo téléphone oui yow Nabou Leye man duma ko setal kenn du ko fi setal man duma ko setal laa wax musuma koo setal te duma ko mës a setal ba ilaa na diini lay layam layamal kenn taqalu layaam layam bi ci boppam moo jeex doy na yow yow nga daan léegi yow nga daan kër jàmbur maire bi nee na caa baa ngi ci yow nga daan dem kër jàmbur ah di fa yendu di def lépp yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais mm-hmm. mais lan ngay xaaree ku mu bokkal ndey ak baay te nga fa daan dem yow kay boo demee dajjilal sa bopp bul xaar kenn ñëw. Ah. waaye ngay te en plus en plus elle a menti elle menti parce que nee na borom kër gi moo ne du ñu dajji tant que membre de famille Aziz ñëwul. loolu est-ce que borom kër gi moo ko. borom kër gi nekku fa. gisuñu borom kër dégguñu borom kër. Ah. ba ñuy dajji borom kër gi nekku fa. yooyu fen yooyu xeetu fen yan façon fen la am na ñu nekk ci suuf nee nañ il veut parler benn benn kii xaw ma tam nañ ko jël waa kan la nañ ko dugal man ma wàcc ma ne am na ku ne nag ma ne dugalal kooku am na ñu bëgg wax bu ko defee ma wàcc mais daal en tout cas mi ngi avancé yéen moom hmm. vraiment dañ leen di gërëm dañ leen di ñaan dañ leen di sant waaw parce que lii moom xeex ju injustice moom ci jaamu yàlla la bokk vraiment

Mmh. Euh, man li ma bëggoon wax mooy euh, li xew tey am na effet bu baax a baax def na effet bu baax a baax a baax parce que ñoo xamante ne gëjoon nañ leen dégg si dossier Aziz Dabala tey boo duggee si live bi tey panel yi da ngay gis ñëpp a wax wax bi. comme par mm. exemple benn patriote bëgguma tudd tur bi moom nga mm. xamante ne gëj na si wax mais tey dama dama dama doon dugg si live bi nii rek ba gis ko mu commencé si wax nit ñi du ci ñoo xamante ne bokkuñu si panelu ambassadeur mais gis naa fa yeneen nit yoo xamante ne ñi ngi yéeg mais li ñuy waxtaan dafa am solo ñi ngi naan mm. li tax euh, avocat bi comment ça se bi xamul sax lu xew comment ça se fait dafa juum waa ñi ngi koy ñi ngi koy dal bu baax a baax baax ñi ngi koy dal bu baax parce que ñu ngi naan koo xamante ne moo moo moo moo kii nu mu tudd moo dimbali Sonko kon xam nga ni kooku dara réeru ko kon bu ne xamul lu mhm. xew su dossier wala xamul lu xew loolu moo wax dëgg yàlla tegu ko fenn ñi ngi koy dal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla affaire def na effet bu baax a baax a baax parce que ñëpp añ ciy wax man li ma bëgg a dolli rek mooy bu fekkee mënoon mën nañ defaat beneen encore beneen euh, conférence de presse ñu bañ a bàyyi ñu bañ a bàyyi comme ça di ko tegale di ko tegale ay marche di ko tegale léegi ñu jug si

ñu jox mami ka waaw mami bisimilah waaw allo. salaamaaleykum yéen a ngi may dégg. maaleykum ngi lay dégg waaw. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi leen nuyu. man c'est la mm. première fois ma dugg ci kii bi bëggoon participer rek. pour wane aussi tamit sama euh, sama sama naxar daal comme ni ko ñëpp di naxarloo. Mm-hmm. Euh, li may def nii sax sama fit baa ngi def tëf tëf parce que musuma musuma def lii musuma def lii donc daal euh, comme ki ñuy wax rek ambassadeur ak yéen ñi nga xam ne yéen nekk yéen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk foofu yàlla na leen yàlla euh, gërëm ci li ngeen def pour Aziz Dabala may wax benn affaire rek may wax benn affaire rek c'est juste que man mm-hmm. euh, du ma fi mu nekk nii parce que sama jëkkër nekk fi kenn nekk fi sax moo tax may wax ndax dam mm-hmm. bi muy soog a am dama ko daan xool di jooy di jooy parce que man dama am problème mu xool sama jëkkër nag mere ma ne ma yow mm-hmm. lii munoo ci dara ah ngay jël di ko seetaan bàyyil di ko seetaan ndax bu dul loolu di nga rey sa bopp xam nga te man comme niñ koy waxee rek man Aziz xamuma ko man Paris la dëkk de temps en temps may ñëw Sénégal ci clip rek laa koy gis mais def na ma góomu xol boo xam ne mënuma ko sax wax mënuma barke salaatul fatiha sëñ Babacar si la bëgg ci sama xol tëdd mhm. naa fii benn sama jëkkër dafa xëy liggéeyi ay cinq heures du matin man su demee liggéeyi suy jug di liggéeyi rek damay profité julli su ma amulee lu may def ma tëddaat man onze heures la ma nelaw yee man daal mhm. dama tëdd euh, dama tëdd gént ci suba teel gi te nee nañu loo gént euh, bëccëg dëgg la mm-hmm. Mm-hmm. maa ngi toog ci sama kanape ma jékki-jékki rek gis asis mi ngi sol benn koppati bu weex daal di sàngoo benn sër billaahi wallaahi barke kaabatal laaj ndeysaan mu ñëw rek daal di ñëw euh, fekk ma fi ma toog rek mu daal di ñëw rek tëdd ci sama ay tànk man tamit ma daal jël sama loxo daal di koy teg ci mbaggam ba pare di reetaan bëggoon naa sax xam loolu gént boobu lan la maa ngi nii di ko soog a génn sama gémmiñ pour wax ko ndax li nekke nekkee sama xol rek ndax li nekkee sama xol xanaa ñëw Sénégal moo tax dew ma demaguma seen kër dew ma fa pour fumiste dew ma fa pour ngistal dew ma fa dara wane mm-hmm. rek ne man tamit yëf yi naqari na ma bu ma yàlla yóbboo Sénégal mois prochain dinaa dem seen kër dem seeti seen seen waa kër yal na leen fay ci li ngeen def te yal na yal le xol yépp li ko nit ñi di wax yal na yàlla dégg ñëpp ba feeñal ñu mm-hmm. def li wa ah, incha allah ba feeñal leen maa ngi leen di bàyyi yàlla baax na incha allah ah, mm-hmm. merci merci beaucoup merci genta genta genta genta yooyu dawlu mu sol lu mom. moom macha allah loolu mom. Euh, Misal, bu baax la bu baax la wax dëgg yàlla bu baax la ñu wane ne mu ngi si man man man tukulóor laa sama yaay tukulóor la mm-hmm. donc man daf ma doon jox rek Euh, euh, mm-hmm. benn magu tukulóor rek sol ko petit mm-hmm. dafa mel ne connexion bi dafa dafa daw dafa tëb wala yéen a ngi may dégg. waaye bi moo neexul. réseau bi moo neexul waaw yéen a may dégg bu baax. waaw ñu ngi lay dégg. moom dafa tëb de dafa mel dafa tëb. dafa tëb dafa tëb waa. waaw xam naa réseau moo am problème. waaw acca bisimilah ñu ngi lay déglu. suba si ziar nañ bu baax taasira. ñu delloo ziar lu bare bari ca jàmm macha allah. <coughs> waaw ma ne allah réussite totale daal la ñuy wax. sant yalla bu baax alhamdullilah marche amul mais réussite amna machallah allah kon dañuy sant yalla ambassadeur na sant yalla tamit bu baax ambassadeur yow santal yalla gërëmal panel bi gërëmal ñepp ndax ñun ñepp ño fa ñun ay doomu nday lañu xol yépp tay toy na wax deug yalla xol yépp fess na mais xol yépp neex na aussi ndax li day neexal xol day dalal xel artiste yi nag man bëggatuma sax ku leen fii tudd pour xaar seen dara ndax daal du nit yu baax kon ñu nañu leen fàtte ñu ay nit yu baax léegi nag nañu xaar rek les retombées ci conférence de presse bi ndax na conséquence moom dina ci am euh, conséquence dina ci am te incha allah bu boobaa ñu xool si c'est positif alhamdulilah la muy wax ñu defaral ñu justice waaw kay bu fekkente ne c'est le cas contraire ñu organiser waat nag beneen marche mais cette fois si day nekk marche boo xamante ne dañ koy lijjanti ci suuf kenn du ko waxtaanee ci panel bi ba lépp leer ñu soog ko indi teg ko fii ci kaw. dëgg la ndax lu ñu lu ñu waxtaanee fii ci kaw rek dina am ñu ñuy jiitu di gor suñu tànk ci suuf te duñ ko xam kon li may wax toujours ambassadeur am na yoo xam ne du waxu panel bi ñi ko war lijjanti équipe bi nañu jaar ci suuf dox ko ba mu sotti. ba nga xam ne dara desatut bi mu génn ñu informé ñu ndax ku nekk am nga wàllu koo war a dox en tout cas chapeau à toute l'équipe chapeau mhm. à di jërëf suñu gërëm suñu yaay jooju bu baax a baax tey waxee na xol waaye loolu lañu bëgg ñu yëngal xel mhm. yi ak xol yépp loolu lañu bëgg ndax dara am waaw wax Samba aussi jërëjëf Samba Nguer jërëjëf yow tamit bu baax yi macha allah yow jërëjëf kontaan nañu bu baax waaw wallaay xol yëpp a tooy tey kenn mënut a wax te sa xol bii du waaye sant rek sant euh, ambassadeur nag euh, dalal boo dalee ba naan sa ndox bu sedd nga dugalal mm-hmm. ñu lien yi ñu dëggu sa mm-hmm. page daal di koy jël partager ko au maximum ci réseau yëpp réseau yëpp ko mën tey ko dugg tey TikTok euh, YouTube foo ci dugg tey war ngaa mën a gis vidéo conférence de presse bi nga toog bàyyi ci mm-hmm. xel déglu mu yegg fa mu war yegg ñu am ci li ñu bëgg Mm-hmm. ñun ñëpp ñoo bokk li ñu bëgg kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla ñu yàlla defal li ñu bëgg mu mm-hmm. nekk li gën am pour Aziz et Wali liñ bañ ñoo dalati waaw incha allah rabbi ñu focus rek gëjoon naa dugg mais conférence de presse bi il faut ku nekk dugg sànni ci sa ñaari baat moo tax dëgg la kay bu baax ñu jéggaluwaat bu baax jërëjëf jërë ngeen jëf rafet na ñu lay jaajëfal lu bare bare ñu jox seen wàccuwaay yéen ñëpp macha allah ñu ñëw ci Roqaya dafa mel ni Roqaya de moo tax waaw Roqaya acca sama doom ji. mama. oui. yaa ngi si jàmm. sant yàlla alhamdulilah. yal na la yàlla defal jàmm kàddu yi day rafet na. ndeysaan ambassadeur tey jooyloo na ñëpp xol bi moo tooy. alhamdulilah ndeysaan. xol mi moo tooy parce que dafa metti quoi dafa metti di xeex tamit ah, ñëpp nekk si di la jàppale muy am réussir parfois sa xol dina tooy quoi parce que loolu nit mënu ko sax suñu borom rek moo ñu moo ñu dooleel ñun ñëpp suñu borom moo ñuy dooleel ñun ñëpp mais combat bi moom yaakaar naa doo si wéet parce que ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi lay jàppale si loo xam ni moom monde entier ñoo koy seetaan ñoo dugg sa live la fekk tàng nga góor yàlla góor yàlla boo bu dee yaa si si live bi nga jël euh, mami mami mu ci suuf moom tam bëgg naa yéeg nga mm-hmm. xool demande yi s'il te plaît. ok mm-hmm. euh, bu ko defee. nag nga non non amul benn problème moment loolu loolu loolu moo tax comme buñ taalee live bi da ngay gis taf taf affaire yi commencé yeeg nga war a xam ne kon nit ñi yow la ñuy suivre bu nekkoon loo xam ne nekkul dëgg kon nit ñi duñ ko suivre une semaine deux semaine fàtte nañ ko nekk ci leneen. mais dëgg la moo tax affaire yi dem diire temps bi yëpp te ba léegi nit ñi xàddi wuñu découragé wuñu ñu ngi si rek pour justice pour Aziz Dabala Aziz Dabala moom yaakaar naa yàlla dinañu jàppale ba ñu am si ndam li ñu bëgg yëpp si barke yeneen bi ambassadeur lii moom pour yow la yal na la yàlla kàttanal yal na la yàlla dooleel yal na la yàlla dëgëral. amiin mën a xel yi si barke yeneen bi parce que mérité nga nga ko lii dafa jafe. dafa jafé mm-hmm. ko xamné bokko ak mom xamoko ko jëjë ngeen si ak Awa té yaa ngi siy def suis pour adam la pour di ci sonu dal di ci sonu ba ñom seen fami xamné dañ ci sonu lool far force yalla dalay fay mëno mëno munul échec té liñ ci bëgg da ci am dam parce que nekul lo xam da ko tricher nekul lo xam ni da ko fabriquer ni pour wax ni ni ni pour nit ñi non non da ko def parce que da ko wara def da ko def parce que da ci sincère kon nag euh, bu tolo fi rek euh, suñu borom dina la gëna dëgëral. te dina la gën a dëgëral incha allah ñëpp xol yi ñëpp a tooy ñëpp am na ñoo xam dañuy bëgg a yéeg mais duñu sax mhm. bëgg yi duñu sax mën a yéeg mais seen xol mooy tooy ba nga xam ne duñu mën a yeeg mais yal na la yàlla suturaal ñi nekk si panel bi ñëpp yal na leen yàlla jàppale yal leen yàlla dooleel man barki Seydina Mouhamed ci live fu ambassadeur laa commencé topp live mën a romb ay live rek dem pour man ay live ay affaires yi non non seetaan télé Sénégal ma seetaan mhm. journal du ma seetaan dara mais live duma koy romb da koy romb di dem parce que am na yoon yoo xam ne man doxuma si yooyu quoi loolu moo tax pour ma seetaan télé mm-hmm. dinaa seetaan télé mais yeneen laay seetaan kon nag suñu gisee ñuy topp si lii ba léegi am na am na lan moo tax quoi dañuy bàyyi suñu liggéey dañuy topp si dañ ciy topp ba nga xam ne dañ naan ñii sax est-ce que am na am nañ am nañ programme quoi am na ñoo xam ne yéeg nañ ko di ko di ko si wax mais am nañ programme am nañ lu ñuy def am nañ lu ñu bëgg mais justice moo nu ñor justice kese moo nu ñor te li xew ci li xew ci réew mi dafa metti il faut lay mm-hmm. xeex ko pour mu wàññeeku parce que injustice bi bari na ñàkk sécurité bi bari na ci Sénégal ñàkk sécurité bi bari na lii donc mooñu ñu ci mën a dimbali pour pour pour ñu mën a génne ci lu bari naa ngi jégal bu baax encore une fois. <laughs> ah amul benn jégal macha rafet na mm-hmm. <laughs> amin allahuma amin allahuma amin yow ma tamit ñu ngi lay bëggee bu baax dëgg yàlla boo waxee rek ñëpp lay déglu yow moom boo waxee ñëpp dañ lay déglu yàlla la yàlla dooleel yow it la suturaal la ci barke yeneen ci bi ndeysaan dëgg la dëgg la yow yow sama la la roqee la tudd <laughs> waaw la loolu la kay <laughs> <laughs> loolu la merci beaucoup maa leen jaajëfal xam naa maa ngi ci suuf incha allah ñu takkute ay dixa dixa wala princesse ki jiitu rek mu ñëw dixa wala princesse salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah ziar naa leen ambassadeur ñu delloo ziar ambassadeur dafa jàpp dafa jàpp xam naa dañ lay dégg sax live bi dama ne dama mënuloon yéegal kenn naka li may soog live moo dëgg la dëgg la. sooy soog a live nii tant que live ko trois ah doo mën a yéegalaate. waaw loolu lañ ma wax mais ambassadeur expliqué na ma ko ba mais ma ko taalee. loolu lañ ma mhm. wax. dëgg la kay. am na ay tim tim ambassadeur bi ñu bëri ñëw nañ aha dëgg la. waaw kontaan nañ trop billahi. ndeysaan. sànq maire dugg na sax di ñaanal ambassadeur ñoom ñëpp dugg nañ di ko ñaanal. dëgg la seen fayda moom wax yàlla. dëgg ñoo ko bokk ñoo ko bokk nag. tey mom liñ doon laam-laamee yëpp fan moom wax naa la dañoo sës démb maa ngi dugg. di la wax man la dañu ne sës yéen a yey sës nag. waaw loo gis lu ne dafa am limite. Mm-hmm. moo tax nag tey nag ñun dugg sama rakk yaay bi tey moom duggee dégg nga ko. temps roqee moom moom amul lu muy nëbbu moom. elle a bien parlé elle a bien parlé. waaw nee na moom si dara moom pare na lépp pour lépp. ñi dañoo ah, sonn billaahi. dafa dafa neexul ci xol dafa metti yow nga xam ne mu demee ba pare ñu bëgg laa lëre bëgg laa jàppee dof hmm. waaw da lay doomu doomu doomu doomu ku wala doomu keneen kon demee na nee na lijjanti nañ ko bu yàgg nañ waxante dëgg waaw waaw ah léegi nag ñoom daal boo nekkee pauvre daal Sénégal yi yaa sonn kenn du la lijjanti kenn du la faale sa wax moom kenn du ko kenn du ko respecté du yoon de loolu la nag ba ma taalee sama live foo compte yi ñoom ñëpp di dugg xam nga di di di di ruube ñii di saag affaire yooyu noonu man mën naa juddoo si banlieue yaroo si banlieue loolu mun na ay ñaawalaate ak ay compte bëgg kii rànga xanaa kay nit ñun dañoo wane dañ leen a yónni dañ leen a yónni noonu lañ moo tax ma tudd leen ma ni leen instant bii dañ leen a yónni ndax seen lobby bi instant bii da ngeen bañ nit ñi wax instant bi da ngeen a jëf parce que da ngeen a fongoon da a fay coow li apprenti jeeg waaw ma ne ko da ngeen a fongoon seeni maas ak ñi ko sër seen ma ngeen Casamance dem ngeen Guinée dem ngeen Gambie. fu ne dem ngeen fa mënuñoo fay waaw lu nekk def nañ ko mu foog mën nañ fay nit ñi. Hmm. man démb xoolal démb laa démb laa kuma démb ba démb tut damaa feebar maa ngi doon dugg noonu di wax ba may wax noonu. ba mel hmm. wallahi maa jiji sama bopp bi du nekk ma niw maa ne tey tey duñ tey moo sama tante ba mu duggee ñun ñëpp ñoo kontaan. billaahi ndax lu ñu bëggoon wax yëpp waxal nuñ ko ñun nii li ñu mun am na ñoo xam ne su doon ñeneen sax ñu koo muñ ñu waxante dëgg rek. mais gars yi dañoo ñëw créé seen i faux compte ñëw dugg si si ci commentaire yi. di saaga lu nekk ñu koy def. ñàkk fayda. ñu leen di yónni. ne leen ngeen a namm seen féex ngeen gisatul moo tax. waaw yàlla leen ëpp doole. billaahi seen chef de bu deful woon dara. bu deful woon ba dara ba léegi mu ngi ci mbedd mi. wax dëgg fa yàlla. moom xam na li mu def. xam na li mu def bu baax a baax bu deful woon dara ba tey mu ngi ci mbedd mi di jaayoo ko wane wu. daa gërëm loo yi ñu bàyyi ko fétis ak lépp lay def. loolu lay def loolu la di fétis la di ko xool xam ne sëriñ ngi ci sëriñ tugu foor a ngi ci. bu foor. yow ki la ma lu tax ma génne ko loolu dëgg la kooku dañ koo war a simmi kooku warul àtte kenn waratul àtte kenn ci miim réew.

Wahara maye gati kanan. Wa d'accord, wa d'accord. Ah, Dexa aca jëlal. Dexa. Dexa bismillah. Da nga jàpp. Ambassadeur boo mën a yégal ñeneen nga yégal ñeneen parce que ñi bëgg a participer bari nañ dañu ngi suuf xam naa def demande yi Safiyatu bismillah Safiyatu taalibe Cheikh waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam. waaw. naam. taalibe. dama la Seex nga xam na réseau bi mooy mooy mooy déplacé nag affaire bi moom. maa ngi tëj micro yi ngeen voilà ñii jotagul wax ñu tëj micro yi ndey tëjal sa micro. non non tëjal sa micro. Ah. Safiatou tëjal sa micro s'il te plaît xaaral xaaral ñu tëj micro yi. ndax ñu mën a déggante bu micro yi tëjuwul rek du leer nday nday tëjee sa micro noonu tëjee sa micro oh là là voilà acca sa taalibe Cheikh acca ñu ngi lay déglu. taalibe sëñ Baara. ah taalibe sëriñ Baara acca man man bu ma gisee <laughs> taalibe rek laa gis. <laughs> waaw yow yaa kaay def sëriñ Baara Mbàkke waaw macha allah ñoo lay sant rafetlu sa taxawaay bu baax mm, ndey ji daara nga ah. ndey ji seex njaaxaanaay nga tëdde di defar mm. yàlla na yàlla guddal sa fan amiin amiin amiin yàggal la ci sunu kanam guddal suñu fan lii rek lii rek la ndey ju baax di jariñ bu lëjee nga lijjanti bu nga ba la ñepp dañ fi tassé kenn xamul kenn mm-hmm. waye jikko jikko moy wané nit mm-hmm. té yow sa jikko wané nga ko né nday ji seex nga jaboté nga yaangi yaatal yaangi défar kon nak mm-hmm. yalla na la yalla fay yalla guddal so fan ci barke seigne bara bank amin ya rabbi bu lolu passé aziz mo fi boole ñun ñepp man ñett yoon nga ni may ci man maangi étali nakaru xol Warna na Serigne Touba Mbacké dimanche dama dugg ci live di wax di wax di wax ci live princesse la yakarna di wax ba tek dem di sangu ji ñu woo ma ne ma sama mag bi ma bokkal nday ak baay dafa gañu oh, sama sama sa Serigne Bara Mbacké. sama dama dugg ci panel bi wax wax wax wax wax ba teg téléphone bi dem sangu ji bi ma génne sama téléphone sonné. sama mag ju ma bokkal ndey ak baay gaañu man maa topp ci moom. sama sama sama te booba doon waxee ci Aziz naqar. laa doon waxee ci Aziz nekk te yoo yàlla mm-hmm. nga naan ma xaaral sa bis yow it mi ngi ñëw léegi. wallaay dëgg la man mii biñ may biñ may tàggee sama bàjjen boobu maa ngi ci bi di dégg. ne kon ñun ñëpp yàlla mooy defee noonu ay mbiram xamante wuñu. naa ko ñun ñëpp mm-hmm. xamante wuñu waaye daf ñoo naqari déegi naqari ba pare man li ma gën a metti ci Sénégal. Mm-hmm. dañuy xam dëgg ba pare teg ci seen tàkk naaféq. parce que Tata demam mhm. Aziz gi ñëpp xam ne leer na. muy justice muy àddina bépp a xam li ci ne. parce que man toujours li ma leen di wax dama naa leen dem ak Aziz nan ko tege nee te indi bu waali. Mhm. bu waali rek war naa leeral lépp parce que waali nekkul ci kër gi bi koy rey. bi ñuy rey Aziz woon ñu ko. dañoo woo waali indi ko te ñëpp xam nañ ne waali dafa liggéey woon. waali jotul ko ko war a woo ku war a woo appel yaa ngi sonatel waaw. léegi ñu indi ñu indi waali teg rey bam dee tëral ci xale bu ndaw tooñut feccut nekkut ci aar defut dara yàlla da ko booleek Aziz mu ñëw ci këram Aziz def ko comme doomam ñu woo ko ba mu ñëw innocent rey rey rey bu ñaaw jama jama jam jam jam ba neex leen léegi ban Sénégal lañ ne. Sénégalu criminel. waaw léegi bu ëllëgee ñu ne pat léegi nag yow li xoolal lii buñ ko lijjanti woon. kii du mi ngi waxtaan yi passé yëpp kii sëriñ bi naan dañ may menacé de mort dañ may bëgg a rey. Mm-hmm. Mara Mara Niass léegi nag bu ñu lijjanti woon bu ñu lijjanti woon affaire Aziz bi kenn du am fit waaye dañoo bëgg affaire Aziz bi tege ñu ne mëfal mëfal teg. ëllëg mm. keneen menacé boon ñu rey kooku ñu mëfal mëfal teg léegi Sénégal noonu lay continuer ba alaa yu diini. waaw boobaa ñu jeexal ñu tàkk rek. waaw te duñu wax ba yee lu mag a mag mag mag mag li ma leen wax naa leen man ñett xëy na li ci ginnaaw kenn mënu koo daaneel waaye nan daaneel ñett nagu lay kenn mënu ko cee génne nañu daaneel nabu lay daaneel ki xam ne moo yónni nabu lay ki xam ne dafa am ak Aziz problème ñooñu buñ leen tegoon ñett yooyu dana leer ak juróom benn ya nekk ci kaso ba ñu àtt mhm. leen ku ci def ku ci def ñu teg la ci yoon ku ci defut ñu teg lay daan àtte la tëj la wala tëj bàyyi la ñi def nag ñoo def xam ne ñoo yor paaka bi jam jam jam ak ki organiser muy nabu lay nan ko te dee. ak ki nga mhm. xam ni nabu lay ñett yi nan leen tëj. Mhm. mooy dëgg de lobby bépp xëy na kenn mënut a daane lobby bépp xëy na parce que dañoo bari am nañ doole xamoo ñëpp waaye ñett ñii muy ananas nabu lay juróom-benn yi ci kaso ba ñett ñii buñ leen tegoon yoon affaire bi. xol yi danañ sedd. Hmm. <laughs> waaye nag di wax te man it leen nit bëgg naa ñoom ambassadeur def ko man avocat bi nga ñuma ko. Hmm. waaye affaire am yéex na torop. torop affaire am yéex na torop. dañoo war a wutaat beneen avocat boo xam ne duñ ko wax ci kaw parce que sénégalais dañoo yomb ak corrompre nañ wut benn avocat boo xam ne dañ koy liggéey ci suuf liggéey ko ci suuf ba avocat bi xëy suba dem jël dossier ba téye dossier ban xam ne kii avocat bu wóor la ñu boole leen muy ñaari avocat bee buñ ko dàq nañ ko fi bàyyi waaye nañ wut keneen koo xam ne day jël yëf yi def ko yëfam mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne dañ lay tuur lëndëm jamono dafa lëndëm mm. dan danaan la maa ngi ci yow maa ngi ci yow fekk ne yoo am na leneen lu nekk ci suuf loo xam ne duñ la wax sénégalais dafa lëndëm maa ngi confiance jërut am ci nit ñëpp ñëpp ñëpp nañ wut beneen avocat mu fekk si avocat bee muy ñaari avocat ñu dox ko wax ko mhm. ñaara man kenn te ñett du bëre ay waay nañ ma jël waay def ma avocat waay ah waaw mbir mi leer na yow fee daanaka Modou Ba li mu Modou Ba li mu wax dafa leer nañ nañ nañ sosalu ko fee mu dund la duggal fii mhm. génnal fii kaay lu nekk fee lii dafa leer police mhm. xam nañ li ci ne dañu waxul xam nañ li ci ne xam nañ lépp daanaka bu ñu dégloo nit ñi danañ mën a àtte même ñoom bu ñu xamutoon fee rek bu ñu dégloo nit ñi danañ mën a àtte mais man dama ne dossier dama ne dossier bi ñuy nëbba bañ koo jox avocat bi laa xamul pour lan lax lan lañ ciy nëbba ah, dafa am leneen lu ci nekk ci biir lu ñuy nëbba lu ci ne ñoom ñoo gën xam li ci ne xam nañ ya, ya ya li ci ne. fee yi ñun sénégalais yi ñun ñëpp xam nañ ko. waaw mën a àtte. bu fekkente ne da ngeen koo bëgg a njuuñ njaajee nag da ngeen koo bëgg a njuuñ njaajee bëgg koo changé bëgg koo tourné. waaw bëgg bëgg a bind beneen bëgg a recopier recopier beneen. waaw loolu ngeen bëgg a def recopier beneen bu bees mënta ne ñun bu njëkk ba xam nañ la ca ne ñun kenn mënuñoo nax nag. lii daal buñ ko nit ñi bàyyi nani mars di wax. bañ a naax saay doxus bi Aziz mii ñu àtte ko ndax dama yaakaar na yàlla moom xëy na dañuy seetaan rek waaye yàgg-yàggam dana leeral ndax li olof naan bëy du bàyyi mukk kuy kuy taxani di du bàyyi kuy bojj di ànd ak kuy taxani xanaa yàlla nag dëgg gi nekk bëgg Aziz reer ak ka ko rey yàlla du ànd ak naaféq ya bàyyi ñi nekk ci dëgg bàyyi waa kër Aziz ñu rey ko rey gu mm-hmm. ñaaw gii xam naa day teelu rek na nii naa xool ba xam na ba xam ñii fi ma leen teg solal leen ay mbubb ne leen atte leen ci àddina ndax suñu boroom mooy atte alaxira da leen a solal ay mbubb ne leen atte leen ci àddina ma xool ba xam mm-hmm. nag bu alaxira nu may def ak yéen damaa yaakaar yàlla dafa bëgg seetaan ñoo ñu mu solal ay robb ne leen atte leen ba xam danañ atte dëgg wala duñ atte dëgg buñ attewul dëgg nag sunu boroom mi leen solal robb bi dana atte moom dëgg ñëpp gis ko ci ci àddina bi bala ñoo dem alaxira wallaahi na nan atte dëgg mm-hmm. léegi Nabou lay buñ ko tëjee lu mi yakal nit ci àddina bi xawma ko de lay ananas buñ ko tëjee lu mi yakal nit ci àddina bi ñom ñoo def katu bon dal dañ ko wara a jant def katu bon mom ca kaso ba rek la moy kërëm kasobaay kërëm na leen yalla wër ba nga xamé ni bu ëllëgé ku bëgg ray dag na ah, man kët lama ma gisoon ñu def Aziz Dabala na deltu ginaaw ndax buñ leen tëjee seen dundu gennatu ñu waxatu ñu def ñu dara ku bëgg a rayati danga ne ah man kër lan la ma gisoon Aziz ka ko rayoon mu def ko man naa deltu ginnaaw ndax bëgg na maa dund ci àddina bu neex bii mhm. waaye bu mal fa mal fa lee tëj ëllëg nit dana rayaat nit te du mujj fenn tata mhm. maa ngi lay bàyyi jërëjëf sama ñëpp a ñëpp a seen xool fees ñëpp a am lu leen metti ci Sénégal mhm. ñëpp am lu leen metti parce que boo génnee Europe xool Europe ni muy doxe yow danga naan Sénégal ñëpp ay nelaw ñii liggéey ñu ñëpp ay nelaw parce que xaalis moo leen jaral seen lépp xaalis la ko nit ki day nekk ci dëgg sax nga tegal ko xaalis mun naa fekk jël xaalis ba loolu ñuy lekk nag riba la mhm. nan ko waxte dee Sénégal lay yàqu ndax xaalis jërëjëf Tansira waaye yow comme que yow ambassadeur da ngay déggante moom mhm. avocat boobu nañ ko lijjanti dox ko ci suuf wut beneen boo xam ne dañ ci am ci moom confiance mu dox ko ànd ak beneen avocat bi mu fi fekk bu ko defee bëri dana leer parce que mënoo yor dossier lu mat 3 mois 4 mois ba nag ni ñu naan xamaguma joxagul ma xamaguma waxagu wala def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk ba kañ. incha allah ñoo ngi ci bu soobee yàlla. waaw soobee yàlla te lu ñuy def it nañ koy def ci suuf parce que panel mbedd la. am na ñoo xam ne dañuy bëy yu sàngoo deru bukki. Mhm. toog ci suuf di génn say information loo wax. wala nit yéeg man kay dama leena bëgg man kay xex bi ma nga ci duggal na sama loxo fekk dafa bëgg lu mu xam bu génné ma ngay yaq dëgg la day am yo xamné ne leen ko def ci suuf mu bañ juk ci kaw ba mu soti ba nga xam ne am leen ci lal bëgg ngeen doga tek ci panel bi parce que bay yu sango déru bukki yaang ngi ci suuf mm-hmm. jërëjëf ndeysaan jërëjëf tata Sira yàlla na leen yalla defal jamm yalla leral mm-hmm. yépp ci barke Sidina ya Muhammad amiin ya rabbi amin amin amin amiin jërëjëf ok mooy mooy wàcce moo euh, ambassadeur mën nga ko wàccee taaliba Serigne Bara Ndeye Ndiaye bismillah ñu ngi lay déglu ah, asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waa ah, tim ambassadeur yëpp bëgguma lim juum suma limi juum ba duma motale dëgg la maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ambassadeur jàmm yal na yàlla sàmm yal na ko yàlla yiir yal na ko yàlla làq ko yàq yeggul képp ku nekk yàq yal na nga yàqu képp ku nekk si panel bi képp ku leen bugg a yàq yal na nga yàqu si barke salaatul fatiha oh, tey moom tey sama baat bi nag daa dee dama soj fan yi yëpp masa masa masa maa kontaan maa ngi ñaanal ñëpp jàmm oh, parce que tey moom tey moom xol yi tooy na nit ñi kontaan nañ oh, surtout soxna soosu wax ji bu wax parce que dëgg da koy doo ko ragal surtout bakkan bu tëdd ay ñaari bakkan amul ragal dangay wax da dee wax mbaa nga dee mbaa nga dund parce que dëgg la yàlla bëgg wax soo ko raay raayalee rek yaa ngi yàq yaa ngi may ñi ngi ko seqal doole amul dara luñ ci raay dangay jaar si digg bi loo si góobee nga gar parce que dee benn la waaye nag raay raayal bi su méttee ñoom dañu gën di am buntu di gën a osé wu di gën dëgër mais ne nit ñi jaar si digg bi pas que lii ñëpp ko seetaan video yi ñëpp a ngi ci téléphone yi ñi ñi gis nañ lépp gis nañ lépp nañ bàyyi fowantu bi Sénégal fii fan la nit ñi jëm fan lañ jëm da nga xool diaspora bi ñun ñëpp niñ ci taxawee mais ana Sénégal ana ñim doon andal ana ñim doon feccal ya. mel num Samba lay dañoo weer seen mhm. bopp ba pare. parce que boo ñu taxawoon dañu weer seen bopp loolu rek du justice mënoon na see am bunt parce que dañu weer seen bopp ana ñu ñoom ana ñu ko seqaloon ana ñu loon jàmm góor jigéen ñan la doon feccal ñan la doon àndal di fecc ñëpp a ne tekk kenn waxut yàlla weer na leen. billahi mm-hmm. wallahi tallahi te dinañ weeru ba àddina yóbbu teg si seen bopp képp ko ci laal yàlla dina la mm-hmm. weer te sa àddina fi lay jaar yàqu te dootul baax bu fekkee alal ngay ut dootoo ko am ba illaa yoomi diini sa di nga jaay sa ngor jaay sa kóllëre doo am dara. Sénégal mm-hmm. ba parce que rey nit fekk nit ba biir këram biir néegam fekkoon si mbedd lañ ko rey sax ñu ne waaw xamuñ mii biir néegam. nga sam sa sécurité fi nga war a suturloo fi nga war a sauvé suñ la dàkkee sa kër nga war a daw dugg tëj ñu fekk la sa boobu rey la ku la xam rek moo la ko mën a def ku la programmé moo la ko mën a ya. def te dégg dañ ko programmé nekkul par hasard dañ ko teg ba jaar yoon teg seeni plan teg seeni lépp taraay nañ ko côté bu nekk mënu sotti ñu fekk ko biir néegam rey ko parce que yóbbu nañ dañ ko rey si mbedd mi mais taraay nañ loolu ba sonn sottiwul ñu fekk ko ba biir këram ne lii moo fi sës parce que booba mission bi mat na fokk ñu foog ñu appliquer ko yal na len yalla weer ci barke salatul fatiha mm, na la wóor ne parce que diaspora bi kala mo jot ta amut mm. nit ñi heure lañu dawal heure ngay liggéey heure ngay xey heure ngay wacc mais ñepp a ngi si jàpp su Sénégal mm. mel won ñi ak ñim ko andal affaire bi leer na affaire bi leer na ma ngi nuyu ñepp di ñaanal ñepp jamm képp ku ci xey di ci wax di ci dox lu baax yalla na la yalla yiir yal na yalla yàlla sàmm yal na yàlla sàmm sa njaboot yal nañu yàlla musal musal mbooleem doomu aadama képp na ku ci laale mbaa nga takk si yal nañ la tëj ba damm caabi ji parce que ay nabule ñi ñu tëj seen bokk bu dee sans sans sax dinañ leen gis de dinañ dem kaso ba visité leen mais yaay Aziz la dootu gisati doomam ak gisati doomam wala gisati seeni doom mm-hmm. ah, mais buñ la tëjee di nga ko seeti di nga ko yóbbu lekk mais nag mm-hmm. ñaar ñi Aziz ak ak ak kii ak euh, Boubacar duñ leen gis duñ leen gisati ba illaahi yow mi diini lu gën a mm. koy taxaw di farle ku rey billaahi wallaahi kooku hypocrite nga te boo dee safara bu desee benn étincelle sax dinañ la ko boyalal parce que kii dafa dee. Mm. ngay farle ku ku rey Sénégal ban dëkk lañ nekk naa fekk gi ñu nekkee ñàkk wax dëgg gi ñu nekkee ba kañ mooy suuxal réew mi Sénégal yàqu na du ñu wax dëgg si ñi ma ko war a wax fenn ngir sa intérêt personnel nga toog di fenn ragalo yalla xamoo ndax fi ngay waxe yalla ya mun na fa la fa tok rek malaaka maw di ñëw fad la fa nga dee xamoo yaa ñi bi sa kër ndax di nga yegg Sénégal ban pays la nekk ban monde la nekk hmm, man damay tok toujours billahi wallahi damay tok toujours dañ ma sa xamé xamee ma ne su ma doon judduwaat billahi dinaa judduwaat si benn réew bu dul Sénégal parce que balaa nga ya, koy xam nga genn bitim réew nga dégg dem si benn réew même si sou raison ñu woon li ñuy wax ci Sénégal kan lañ jëm day rus sax bu nekk sénégalaise des fois parce que dinañ toog wax si sénégalais loo xam ne boo dee sénégalais sax sa xol bi day jeex da ngay rus mm-hmm. habitude bu bon bi ñu amee soxor gi ñu nekkee hypocrite bi nekkee pour lan ba kañ ba kañ naa fekk bi ñu nekkee duñu wax dëgg toog si télé wax di wax si nit lu bon di wax si nit lu ñaaw billahi wallahi tallahi balaa ngay dee sukuraat képp nekk war na di ko xalaat ngay dee di ko gis ngir lan alalu àddina ngir lan sauver koo xam ne dafa rey bakkan mooy wane ne naa fekk gi tey jii ku ñu reyoon tey jii naka la te dëkk bi dafa war a am loi lan moo nekk Sénégal kenn mënul comprendre nit ñi ñu ngi fi seeni famille ñu nga fa da ngay dem di ñëw da ngay dem di tiit parce que ku la fekkati ba sa kër rey la bii bu niilee na la wane Sénégal ku fa nekkul soo yeboo nga toog fa nga nekk. bi buñ commencé ke ta dara lérul ko yebu baye Sénégal parce que dinañ la fekk ba sa kër soxor dina tax nga joggé ba yaax ñu fekk la ba sa kër ray la ta dara du si dikk dara du ci dik nañ ñi delloo ci waat tali tay wax dëgg dëgg la yalla bugg hmm? ki soxna soosu li mu wax kontaan naa si moom moo ko euh, euh, kii na ko euh, jumbori parce que dëgg dang koy ñëmé dëgg do ko ragal boy dé da ngay dé ci dëgg yalla gëreum la way bo dé ci lu dëgg yalla xarab la yalla ñu ci yalla mussal ma ngi jégalu di ñaanal ñepp jamm ambassadeur yalla la yalla jappalé képp ku bokk ci panel bi di xiy ku ci nekk rek yalla la yalla sam sam sa njaboot mussal la parce que li jombul kenn ci Sénégal parce que comme li lañ débuté jombul kenn ku yabu nak jog lé bu ñëw niil lé bu ñëw niil ñaari bakkan nga osé tok ci télé di yak ay borom ngir lan alalu adina feccikat yeeg musique see yeeg yàlla weer na leen parce que li leen weer moo tax parti gi ñu noppi wala leen yàlla weer xam ci ginnaaw te yal na leen yàlla weer billahi wallahi rido bu ñu sàngoo yal na ko yàlla muri ci barke salaatul fatiha ci kanami àddina yëpp maa ngi jéegul sama xol dafa fees xale bi dama ko jooye jooye jooye assis ba mu dee ba tey chaque jour maa ngi si panel bi may maa maa ngi si panel bi maa ngi tapote maa ngi si suuf chaque jour ba guddi ba xaaji guddi fekk ambassadeur panel bi damay am ay ñaata appel ay ñaata message suma bari lay xol yëpp doga tonté tontu yëpp bugguma dara raw ma ma ngi ñaanal ñëpp jàmm képp ku ci nekk ma ngi lay ñaanal te yalla yalla yàlla lepp ci si barke salaatu fàtte maa ngi jégalu wàccee ma sama xol bi dafa fess amen ya rabbi yal na yàlla nangu ñaan jërëjëf jërëjëf amen ya rabbi yalla boole ñu ñaan ñun inshallah amen ya rabbi amiin amiin rafet na inshallah merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. ayca noonu noonu ubbi sa micro. noonu wala kaani salaat kaani salaat ñëwal. kaani salaat. salaamaaleykum. kooka la noonu. salaamaaleykum. maaleykum salaam kaani salaat yow tam doo gaaw man maa ngi bëgg a mariner salade bi nga bëgg bañ a wax. bata maa ngi nuyoo de xanaa da ngeen maa ah, dégg rek. ayca bisimilah ñu ngi lay déglu. Tata Sira. oui nuyu naa nuyu naa waa panel bi yëpp nuyu naa ñëpp ñëpp ñëpp. man daal affaire bi daf maa métti man depuis depuis Aziz depuis Aziz gaañoo ba léegi. maa maa ngi suivre ay affaire am man seen panel bii du mu si jóg franchement chaque jour maa ngi chaque jour maa ngi si des fois damay damay déglu ba damay jël sama airpod di di déglu man ci suuf laa nekk di tapote du ma du parce que mënu ma wax mais je préfère ma ma nekk suuf di tapote. mais daal affaire bi affaire bi ñëpp la metti ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la metti bésu Aziz bii moom da cee rawati moom bii moom euh, franchement dañuy ñaan daal yàlla leeral lépp. ndax lii dafa metti man meel bi saa su ma ko xoolee sama yaram bi day daw wóor na yàlla sànq rek ma si mujj bi ma seetaan direct bi dam kaa xool sama yaram bi daw ma ne ñii ñii ñoo néeg ma ne ñii ñoo ah, néeg doomu jàmbur ñu doomu jàmbur ñu jël ko rey ko nii après comme si ñu def comme si te dara xewul daal ñu toog jàpp seen ñaam comme ça ma ne ko justice dafa war def liggéey parce que lii parce que lii jaaduwul metti na si xol metti si képp kuy yaay képp ku képp ku jur di metti na parce que danga xool yow bu ko defoon sa doom dafa metti dafa metti Aziz nekkoon soutien na famille di dimbali ay waajuram ñu ñëw def lii surtout ñu fekk ba këram ba biir këram ñu rey ko dafa metti dafa metti lii ku ko waxul tamit sa xol metti na franchement ñun dañuy ñaan rek justice def liggéeyam pour lii ba yàq ba yàq ci xew Sénégal parce que lii rey dafa bëri Sénégal dafa bëri Sénégal ñu wax ko te dee dafa bëri Sénégal ñun lenn nak lay ñaan pour juste def liggéeyam pour ñu xam kan moo def li ak lu mu def ko ak raison bi lutax mu def ko parce que lii dafa métti si xol man man bi Aziz dee ba léegi aw ma jàmm chaque jour maa ngi maa ngi xool ay loolu ndax liy wax si moom ndax lii wala laa chaque jour maa ngi sama panel bi moom lu musu jóg chaque jour maa ngi si panel bi di déglu déglu déglu damay déglu mujj si damay nalaw dama di dégg tis ay nalaw fay fay porte fay téléphone bi parce que lii dafa metti dafa metti dafa metti ku kaw wax ak ko waxul dafa metti doom doom dafa sax si xol ma mère bi saa saa si ma xoolee wóor na yàlla wóor na yàlla dama tëmb tëmb day taa parce que dama naan lii doom ak nu mu saxee si nu mu saxee si doo si xol mm-hmm. doom ak nu mu saxee si xol ñu jël ko ray ko nii te yow xamoo lu tax ñu ray ko xamoo lu tax ñu ray ko ah, dafa metti dafa metti dafa metti kuy yaay ak ku yaay sax lii war na laa metti ku nekk yaay ak ku lekkagul yaay sax lii laa metti dafa metti te te te ñun lenn lañuy ñaan pour yoon def liggéeyam yoon def liggéeyam li ci war ñu def ko li ci war ñu def ko parce que li dafa metti Aziz tooy ñu waxul waxul kenn kenn lu ñaaw waxul kenn lu bon ñu def ba kër ñu rey ko dafa metti dafa metti si xol man daal leen rek laay ñaan juste liggéeyam. incha si laale yëpp ñu jël leen ñu jël leen. tëj leen parce que lii dafa metti loolu rek laay ñaan ñun loolu kese kese kese la ñuy ñaan justice bi liggéeyal ñi ñi si laale jël leen ñu tëj leen wu la ñu bàyyi ñu gisee ni kër mais ñi si laale ñu tëj leen parce que loolu parce que loolu foofu instant bi loolu rek a def loolu la ñu war a def parce que lii dafa metti dafa metti dafa metti man moom man moom franchement depuis Aziz gaañu ba tey ba tey maa maa ngi si maa ngi si damay damay ne damay nekk damay nekk si panel bi ba ñu jékki damay damay gis ay nalaw sax fay portable bi damay déglu sama airport dugal di déglu déglu ba ñu jékki nalaw damay di jékki gis ay nalaw rek portable bi parce que af bi dafa maa metti ni ñu ko defee moo ñaaw te li si gën a garaaw mooy xamuñu xamuñu lu tax ñu rey ko xamuñu xamuñu cause bi loolu loolu moo loolu moo loolu moo nekk si bopp Sénégal lu tax ñu rey ko léegi lépp dina leer bu soobee yàlla incha allah léegi ñu xam lépp. loolu li ñu lañ bëgg loolu rek lañ bëgg dañoo bëgg ñu xam ñu xam lu tax ñu rey ko lu tax ñu rey ko. ndax ndax ndax aji koo gis ku gis kanam googu tooñ tooñu saagul liiwul. lu tax ñu rey ko koo xam ne yow ñu fekk ba sa biir kër ñu rey la loolu dafa ñaaw dafa ñaaw moo Aziz moo moo moo waale dafa dafa garaaw li dafa garaaw moo tax leen lañuy ñaan justice def liggéeyam. waxuñu kii moo def waxuñu kii dañ ne dañ ne yoon na def liggéeyam kii ñiy def ñu tëj leen ñi def ñu bàyyi ñibbi seen kër loolu a lañ bëgg instant bi loolu rek lañ bëgg wasalaam maa ngi maa ngi wàcc tapote bu si suuf. kay kaani salaat merci beaucoup. merci kàddu yu rafet. ok waaw ñoo ko bokk. ok mm. ambassadeur mën nga ko wàccee. Aja Ajaratu Ajaratu borom wara borom salon rek ñoom ñaar yéen ñaar ñi nekk ci kaw Ajaratu borom <laughs> ñii dafa mel ni dañoo tëj seen micro déggatuñu dara. ajaratu borom salin roqaya wa mama ah waaw ba tey kon ñun ñaa ñu continuer waxtaan bi bo ba ñu yégal gaa yi xam silence teg ko daal di nekk si yeneen. nekk si leneen waaw c'est ça. Ah. Ah. Ah, loolu la de moom. Hmm. ñun daal justice rek lañu soxla. waaw pour Aziz Dabala yàlla dinañu may ndam bu soobee yàlla. amee ak béti ah gisuma leen de depuis ce matin wax dëgg yàlla gisuma leen gisuma leen peut-être fekkante wuñu si live eh, leen di laajte xadi Njaay gisuma leen de vraiment xëy na fekkante wuñu fi xëy na yéegoon nañu sànq fekk nekkuma fi woon mais may ba léegi gisuma leen hmm. xam naa dañoo jàpp rek xam naa dañoo jàpp hmm. ñun daal justice rek lañu soxla pour suñu ñaari doom yi as dabala ak waali ak képp ku ñu mas a rayal rek képp ku ñu mas a ray rek ñu ngi demander justice pour ñoom ñëpp hmm. waaw ndax jur sa doom ñu xëy arraché ko ci say loxo ci injustice parce que bëgg ngaa tekki wala parce que leneen ak leneen ak leneen a ci tegu mm-hmm. du dëgg du yoon warul reyal kenn duñu ay malaaka duñu ay mm-hmm. frère yàlla duñu ay cousin yàlla duñu ay jarbaati yàlla yàlla yónniwu leen neewu leen demal reyal ma kii que ce soit kenn yónniwu leen amuñu droit rey kenn waaw léegi nag comme ñoom daal rey nañu man daal dama ne ku rey dañ laa war a rey man lii laa wax man ku rey dañ laa war a rey nga xam li ci métit na rayee nit ki nu mel noonu lañ la war a rayee nga sentir douleur bi nit ki sentir Adja Sira naam Khady nday nday waaw ma ne ko man de li ma wax rek peine de mort nañ appliqué peine de mort parce que bari na ray bi dafa bëri ray nii moo ray rey boromam te reyante bi sa doom après sa sept ans wala dix ans nga genn prison di dox sa di dox di dox di dox sa place sa papa naka laa koy waxe wala xal ma da xaw ma nuñ koy waxee daaw wareen ñi bi rey yëpp Sénégal daal neex na leen jege ñoo leen rey ñi seen xarit la leen woo ray leen ku leen jege moo leen rey ñi bi rey yëpp jàmbu reyu leen de ku leen jege moo leen rey daaw bareen ñi bi cité ñi rey yëpp ñi leen jege ñoo leen ba kañ kan ngay hmm. wóolooti kan ngay wóolooti. Hmm? kenn xamul. Sénégal ndax tamit métti na bii nii buñ ko naxasalee benn du fi leer bii buñ ko naxasalee benn rey dootu fi leer si àddina. si Sénégal dootu leer kay dootu leer kay dootu fi waaw. double hmm. mort ñun ko benn Sénégal yëpp dégg nañ ñëpp yuuxu nañ fu nekk lan moo tax ñëpp ne pat lan moo tax ñu war a wax waxuñ lan moo tax autorité yi waxuñ. lan moo tax yenn télé yu mag yi defuñ ci débat. lan moo tax lan moo tax télé yu mag yi defuñ ci débat lan mooy problème bi double morte ñoo xam ne reyuñ leen benn kii dañ kon xam ne lépp programme yi. rey kii mu neex la nga toog xaar keneen. lépp <laughs> programme yi yomb ak yaa moom ni yaa jur. Abdoulaye Aziz a ñi ñu xëy leen ubbi bopp yaakaaroon naa ne yaakaaroon nañ ne dañuy def noonu rek génn si seen mel ne ku yor sa benn doomu tubaab rek sa poupée rek mel ne ku yor sa rek di rend di teg nga fa daan dem nga teg ko fan di fa daan dem mosoo nga teg ko fan da nga toog dem soo gisul dara looy looy woote balaa ngay dem doo dem mbaa nga wax ay mbokkam ak ndax xanaa kooku foofu la nekk gisu ko déggu ba tey déggu ma ko mais nga yow jubali foofa direct kon yow xam nga la nekk xam nga la ba nekk. Mhm. nañ commencé si fay ak bi ko ne dugal si salle de bain bi la. koo gis mu ne naa mu ne ko naa dafa dégradé mu ne ko waaw mu ne ko waali la lu ko wane waali moo dégg moom lañ de si salle de bain bi. te yow li ngay wax yooyu yëpp kooku dugal dugal xoolal fii xoolal fee yow duggoo yaa ngi taxaw ci buntu bi ci kër goo xam ne miin nga miin nga cin ya miin nga cin ya min nga kaasu ataaya min nga baraada ba min nga lal ya min nga fëtëy ba min nga duus ba nga ne yow doo dugg taxaw ci buntu bi ne doo dugg pour lan doo dugg loo fa ragal ak loo ko gis ni dara nga ne duggal ci salle de mu dugg ci salle bi mu gis mu ne gis mu ne ko koo gis dafa dégradé mu ne ko waa mu ne ko kon waali la kon yow xam nga ka fa nekk am na ko moos bi ci gis di jàpp ne ko mu ne ko affaire bi mu gaaw parce que si ay waxam la ñi Nabou ki ko bàyyi daf ñoo yeb. dafa yeb sénégalais yi. dafa yeb sénégalais yi dafa respecté wul gouvernement bi. respecté wul gouvernement ñàkk a respecté gouvernement moo war moo tax mu def lii mu def. day daaneel valeur yi gouvernement bi daaneel valeur yi justice Sénégal kenn dootu leen wóolu lii bu jàllee kenn dootu leen wóolu si àddina ñoom ñoo war a xoolaat li ñuy def parce que nag am na yoo xam ne ñoom seen bopp am na yoo xam ne gàllaaj mu ne leen jàppale parce que ñoom dañu gàllaaju ñoom ko nekk ci kii bi dañu kaa laajul kon gaa laaj mu ne leen jàpp dañu def yàlla na ma yàlla baal ñi ko def dañ def lu leen neex mais lan mooy cause bi ak lan moo ne ci ginnaawam ba tax mu jaral leen di lan moo ne ci ginnaawam ku ci rayon sa doom nga génn wax ku ci rayon sa doom doo doo toog nii nii na la ko nii dafa métti dafa métti yaayam yaayam laa mënut a dafa métti mère bi mag la di xalaat mënut te gis ngay xool ci tele bi di gis sa doom ñi toog ci télé bi di wax lu ñaaw si sa doom te xam nga ni loolu amul tiitoo si yàlla nga di ko dégg te ñàkk sa doom dafa métti loolu rek ñoom ñoo si waroon a taxaw ni mu gën a gaaw ko toog ci télé bi yàq deram ñu yóbbu tëj la si kaso bi mais ñuy seetaan ba kañ ba kañ ba kañ ba kañ mm. Misi wajas hmm. waa diaspora ya bi taxawé su ko ci ko ñi ma andalon taxawon dëgg bi bañ na mais ñom yalla woo leen wër amna lu ne ci seen ginnaaw ñom ñoo wëru nañ képp ku taxaw waaw am nañ lepp ngi non xam nañ lepp lañu ragal dañu ragal wax ñu ray leen dañu ragal wax ñu ray leen mais nit dangay goré ba dé nañ la ray ci dëgg yalla la bëgg bo dé nga dé ci sa ngor ragal wax ñom ñëpp xam nañ li tax ñëpp xam nañ lepp yaakaar nañ ne ko ci wax ñu ray la Lul dong lah, kam lañu lépp. mais yal na leen yàlla weer ci barke salaatul fatiha ak darajay nabi Mustafa. Amin, rabbi amin. amiin amiin lay kàddu yu rafet na kàddu yu rafet na macha allah. dama ko joye, dama ko jooye jooye jooye jooye yërëm ay mbokkam yërëm ay da yërëm ay yaayam xam nga nit da ngay bokk moom jege ko sës ko bu dee rek day am lu la manqué ay da loolu moo ko dal dafa ñàkk. ku ko jege ñàkk xaritam da ngay bokk nit mu nekk sa xarit loolu la ñàkk man limu mu dund dama ko dundu sama frère dama ko jege won dama ko ñak ba tay ma ngoy joy ba tay ma ngoy joy xam ah, eh. na ay da di dundu, dafa metti dafa metti yalla na yàlla kàddu yi rafet na amiin yaa rabbi amiin rabbi kàddu yi tamit macha allah Adja Sira ñu lay sant di la sa parce que taxaw nga yaay taxaw nga taxaw yalla la yalla fay ci bu ci dugg rek yalla la yalla fay muy mag muy ndaw ya rabbi suuf ma ngi ñaan ñu fay jamm barke salaatu faatiha waaw képp ku ci dug rek mag ndaw xalé yaa ngi ñom yépp ngi ci gërëm ami beti yëpp kepp ku ci bok rek ma ngi lay gërëm di la ñaanal goor yalla ñepp suma dimé joom dal te su ma du ma ngi gërëm ñepp di ñaanal ñëpp jàmm waaw ambassadeur na mom mom ñaanam spécial mom mi def panel bi wax na ko yàlla may ndam yalla dëgëral taxawaayam yalla musal ko waaw yalla nako ko jot si xuloo si barke salatu fatiha ta sobe yalla dina am inshallah allah waaw ak ba na merci jëlal kenen inshallah allah ok merci. jere jef lay merci beaucoup. ñu jox la fleur fleur. lay ubbi sa micro. alaykum maaleykum salaam. Euh, maa ngi nuyu ñepp fait mon dama euh, j'ai fait cette participation et ñu ngi lay déglu mu est vraiment lu ñu métti ñu c'est la première fois que moi j'ai été live Malin donne suivre avant depuis le départ mais c'était sur euh, sur YouTube mais depuis euh, que Disney Disney ambassadeur mini def en live sur TikTok c'est là que l'a créé ce mon compte pour pouvoir suivre en fait

pour que les consciences puissent être tranquilles. Parce que c'est vraiment dur, ne serait-ce que pour la maman, elle est très âgée. ñu mm. avons vraiment en tout cas nous ñu ngi soutenir vraiment Nous ngi ci tapoter même mes enfants sax ñoom tamit dañuy tapoter tout ça n'est-ce pas les filles. voilà. ça. Bonjour bébé. Ça va Ça va Tu vas hein Tu voulais dire Tu vas bien bébé Oui, ça Comment va. Tu Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Sarah. Sarah. Sarah. Tu alors Sarah. Tu es mon homonyme, hein. moi aussi c'est Sarah. Sarah et Syrah, c'est la même chose. tu voulais dire quoi, Sarah Ça bien. Je veux savoir qui a tué Aziz Oh là là, c'est ce qu'on recherche nous aussi, bébé. On ne sait pas vraiment. On nous cache beaucoup de choses hein, sur ça. On ne sait pas pourquoi il faut prier pour Aziz et Wali, comme ça. Il faut bien prier pour eux. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? <laughs> Allô? Ndeysaan ambassadeur Oui, sa domi Je m'appelle Selma. Tu t'appelles comment? Selma. Selma, un joli nom. Salma, bonjour. C'est pas ah. normal qu'ils l'ont tué. Mais... tu veux savoir qui a tué Aziz et Wali Non, je veux, je, veux juste savoir que, que c'est pas normal qu'ils l'ont tué parce que ça se fait ah, Oui. Ah oui, c'est vrai bébé, c'est pas normal, c'est pas normal du tout. Personne ne doit tuer personne. Bon courage à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et il faut bien prier pour eux. D'accord Merci, merci beaucoup. Oh merci beaucoup, Tata Sira. Et beaucoup Fleur. Merci, merci, merci à toi aussi et tes enfants. Ah, Kirgide, <laughs> ambassadeur. Bébé, il

noonu laa koy woowee monsieur Mbow xale boobu tamit macha allah pertinent wax waxam joo xamante ne wax ju rafet rafet rafet mm-hmm. kii raykatu nit boo leen dégg war naa xam ne rey baaxut kenn du rey kenn amul droit rey mm-hmm. dëggam xale yu ndaw yi ñoo mm-hmm. éveillé xale yu ndaw yi ñoo yeewu macha allah di def lu baax di wax lu baax di gis fi ñuy defee lu baax ñu fay forcer seen yaay yi pour ñu yéegal leen fa ñu mën a waxante lu baax ah mag ñu bon ñi nag war ñeen a gindiku nag mak ñu bon ñi war ngeen a ëlbati seen xel yi nak nek nit nek ay nit baña nek ay mbam Allah ok fleur merci beaucoup mm-hmm. vraiment rafetna merci tata sira man dama contente ci sama doom yooyu macha allah merci merci merci beaucoup merci vraiment bon courage merci ambassade ma jox la parole bok wala ma jox mama wala adja waaw waaw ni gars yi waaw koo jox rek mën nañoo ñëw rek. ndeysaan jumbori tey wax na ndeysaan jumbori tey non. macha allah xam nga mama Sira mama Sira ba am mama Sira fecckat yi ah. Mm-hmm. wax naa leen ko fecckat du leen gis kër Aziz Dabala de. bu ñu ñëw musuma xalaat na dañuy ñëw. wax fecc wax jee fi nekk nii rek. du ñu yi. fecckat du doo gis kenn kenn ngeen su gis xam nga ñoo taxaw noonu wax na comme gis nga ay ñoom Maguette Seck. xam nga mm-hmm. dañuy wax naan. ñu dañu am ay kilifa suñu kilifa yooyu ñu tënk ak. xam nga. Mm-hmm. ay wóole ay Pape Moussa ay xam ngeen nangam ñoom xam nañ li xew. <laughs> Eh, kilifa yi leen tënk ay kilifay bandi. kilifay wëyu moo leen tënk. na ngeen def mbaa yëpp ci ñoo ngi fi ñoo si jàmm. sama kàddu tey nag kàddu gërëm la ak sant leen. bëgg bàyyi. ambassade mbaa yow xam nga ni yow sant nañ la tata sira ami béti mm-hmm. ranaar ñi nekk ci panel bi nga xam ne ba muy door ba léegi te xamuñu suñu xamuñu fu ñu dëkk ñun te xamuñu Aziz barki yonent bi foo leen toog di leen wax amin mm-hmm. ñoo ngi leen di sant ñun ñu dëkk ginnaaw raay ñoo ngi leen gërëm ñun nag newuñu ginnaaw dañoo tukki mais fa lañ dëkk fa lañ juddoo ba toll ni ñu toll Mm-hmm. mais ambassadeur baa xam nga ni yow mi garmi nga ndeysaan yaa baax yaa gore taasira yow yàqu mm-hmm. leen ci dara mm-hmm. ndeysaan ba fa ñuy mujj dama leen di gërëm ñun ñëpp yéen ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm tey da ngeen ñoo yëkkati sagal ñu suturaal xam nga lu dafa yàgg ginnaaw raay fii lañu ñu rayoon keneen koo xamante ni ñu ngi ko rayee biir cent mètres kenn ngaangut ba tey dégg nga lii avant Aziz